tey dañ fi ñëwoon mu am mbetti torop tase fi ak uh, waa Union européenne ambassadrice bi ñëw fi ànd ak uh, loxoom loxoom mooy ECHO loolu la wax léegi ci tubaab na mooy bras de l'Union européenne donc mooy loxoom uh, ñun nag bu lu mel nii amee ci àddina bi dañuy tàllal sunu loxo waaye dañu nekk nag ci benn kuréel bu yaatu boo xam ne ëmb na ay ñaar téeméeri croix rouge ci àddina bi yëpp suñu tàllalee suñu loxo ñooñu dañuy wuyu si dana am ay partenaires ñu wuyu si Union européenne dafa bokk ci partenaires yooyu bi mu ñëwee maanaam suñu nee suñu budget euh, euh, ñaar fukki dërëm lañu ñoom juróomi dërëm yi indi nañu ko maanaam le tiers boo ko xaajalee ñett. benn pàcc bi ñoom indi nañu tey nag ambassadrice bi ne dafa bëgg a ñëw xool ndax nit ki fu mu dugal euh, xaalisam dana dana bëgg a xam xaalis boobu lan lañ koy def loolu moo waral tey ñoo ànd ak volontaire Croix-Rouge mais ànd ak président comité départemental bi ànd ak ki représenté fédération euh, international des société de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge pour ñëw seet si liggéey bi ni mu demee liggéey bi dugg ngeen ci tant yi tant yi nag dëgg la fii dëkk bu tàng la réew mu tàng la surtout jamono bii ñu nekk ku nekk xam nga mais bi ma ñëwee fi ma njëkk a dugg mooy néeg bi nga xam ne tant bi nga xam ne dañ dañ ko jagleel volontaire u croix yi volontaire yi fii juróom fukk lañu juróom fukk yooyu fi la ñuy fanaan fi la ñuy yendu waaye mat la yi ñuy tëdd dara darab darab yooyu kenn rek moo ci am darab mooy ki am jabar moom la jabaram jox benn darab bon mais ñeneen ñi amaguñu mais dinañ ko wut incha allah parce que ñëw naa gis naa te ku ñëw gis war ngaa faj donc li fi nekk xam nañ ko du sagoy kenn du bëgg-bëggu kenn bu ñu sañoon benn doom aadama du du dëkk ci fii bu ñu sañoon loolu du am waaye nag comme lii am na ñun de lu ñu man ndax nag dañuy nekk ci wetu état ñun duñu remplacer état dañuy toog ci wetam rek pour seet fan la ñu mën a jàppale ñu jàpp fa fi ñu mën a jàppale mooy di waxtaan ak ñi fi nekk dalal seen xel uufal leen seen doom yi wax leen na leen lii am na tey waaye bu ëllëgee mën na dañ ah jàppale leen ci li ñu mën mooy ñuy set ndax set mooy indi wér yaram ndax boo nekkee ci lii te amuloo wérgu yaram du mën a sotti euh, croix rouge sénégal dafa nekk ci euh, ñeen fukki département ak juróom yi nekk sénégal fii tey comité Pikine la waaye géejawaay am na euh, dakar am na Rufisque am na Tëngéej am na ñun danañ aider foofu ci région dakar bi rek neuf cent ménage la ñuy aider neuf cent ménages neuf cent ménages yooyu Euh, waxal ne ménage bu nekk am na fukki nit parce que bi ngeen duggee ci tente yi am na ñu ne fukk la ñu ñii fukk ak ñett ñii fukk ak ñeent donc noonu ñu ko defee fii ci dakaar noonu lañ koy defee Thiès noonu lañ koy defee région Fatick euh, Sokone euh, Palmarin ak yeneen dëkk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe yooyu donc mënuñu def mënuñu def lépp nag waaye ñu ngi def lu ñu mën lépp li ñu fédération jox cent quatre-vingt-dix-huit million la maanaam union européenne euh, boo ko pàcc euh, ñett benn xaaj ba lañ ci dugal waaye loolu du Dakar rek de Dakar la Thiès ak yeneen gox donc euh, loolu nañ ko nañ ko mën a xaymaa mais ñun li ñuy def parce que am nañu yeneen partenaires yoo xam ne ñu ngi dugal sànq ñu ngi dugg ci benn tente ñu gis benn siwo boo xam ne Croissant Rouge Turc ñoo ñëw jox leen directement siwo bi boo ko ubbee di nga ci fekk au de javel di nga ci fekk madaar dinga nga ci fekk yeneen affaire di nga ci fekk sax li nga xam ne jigéen ñi dañ koy jëfandikoo dañ koy jëfandikoo ah, bu bu seen bu seen règle yi ñëwee xam nga loolu nit ñi duñ ko xalaat waaye Croix-Rouge dañuy xalaat loolu. mu wax ñu ne bon kër yi am ñu commencé wàcce.

Eh, lu bu si ñaawee bi rek si moo si moo si xaw a ñaawul waaw non nee na après nañu bàyyi fi kooku ñooñu dem nañu bàyyi fi mas matala yi mu ne nee na monsieur moo wax loolu loolu nag bu si amee man wax dëgg aw man dama ko dama ko xaw a ñaawul franchement di franchement di dama a biñ fi ñëw metti na lool ndox mi dugg suñu biir kër ñun ñoo dend biñ fi ñëwee ba léegi bi ñu ñëw fi la ñu fekk croix fi la ñu fekk mairie fi la ñu fekk ñëpp ñu taxawuñu taxaw bi ma allah rafet na ndax ni ding ko yónnee bi ko yone man na baña def li nga ko wax wa ñom ba ñëwé ñëwee ñoo matal ndax fi bu nekké hôpital bi mu ngi ni bu nekké du ci sét nañu auto ndox yaangi taxaw ngi ñuy ñu naan ñuy sét heure bi ne ñu ngi ñuy sét ku fièvre ñu japp la faj jox la ay ordonnance ku tok ben place amoo loo jënd ordonnance ñu ngi ñuy nañu yermandé xam nga mag moom amul nelaw sama néeg a ngi ni man maa croise bi ñu ñoo jàkkaarloo xale yi am nañu yar am na ñu yëg am ñu safo am nañu faale toujours ñu ngi foog sama sët yi ñu ngi dugg ñu ngi génn ñu ngi ñëw fii moom nit ki nag bu demee ba ñëw fii xam ne da amul doole ñàkk doole moo ñu fi indi ndax ku sañoon boo amee problème da nga koy faj kenn du la yëg